fa tabaarakallaahu mu mel ni ñu ngi jëm ci weer boo xam ni léppam barke la di shahru ramadan al mubarak nga xam ni ci la alquran wàcc ngëneel yi nekk ci weer yépp soo ko doon natt mën nga ni ngëneel yi nekk ci weer yi moom la ñu ful def ko ci weer boobu di shahru ramadan al mubarak santaane bi yàlla aussi jiitu ci yaa ayuha allazina amanu kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala allazina min qablikum laallakum tattaqun ndigalal yàlla moo ci jiitu mooy yàlla waxul yéeféer ba waxul naar fekk bay war di ngistal waxul ko ci yoonam nekkul ka mu waxal mooy jullit bi nga xam ne gëm na te gëmam di dëgg kooku la farataal ci moom koor ni ko nag boo wooree ba xiif aussi danga xam ni ñi la jiitu woon xiifoon nañ waaw xam ni farataaloon nañ ko ci ñi jiitu kon bul joytu wàllu xiif li nu soxla yépp nag ci koor gi mooy nga jële ci ragal yàlla ragal yàlla nag du rek dégg dara wax subhanallah du rek dégg tëju di jooy ragal yàlla mooy am kilifa parce que mag ñi bi ñu leen laajee luy ragal yàlla dañu ni ki ragal yàlla mooy koo xam ni même bu wéetee xam na ni mi ngi ci ay loxo amul kilifa defe naa ni bu wéetee day ci ay loxo kon loolu mooy ragal yàlla ragal yàlla boobu la ñu soxla ci shahru ramadan al mubarak muy weeru ko waaye aussi yonent bi xamoon na ni bu demee ba aaxiru zaman dinañu jël koor dugal ci ay aada lu yonent bi doon bañ te léegi boo seetee ni majorité jullit yi di woore koor gi yëpp presque aada la te bu koor nekkee aada nag day dem ba li nga ci doon wut ci wàllu ngëneel di ko ci wut ci wàllu yiw dootoo ko ci am li nga cay am mooy eh, sëriñu aada nga maanaam dundal nga aada <laughs> su aada jeexee ñu boole ci sëriñu aada yi li indi aada ci koor yi mooy bare na kàddu yuñ ci falsifié ak yeneen yoo xam ni dañu ko jële ca rekk ki toog ca village am maanaam te fekk sax amul yaqin ci koor maanaam nàngam par exemple ci réew yu mel ni Sénégal Euh, da gis ku woor dafay defe ni dafa war a seex socc suba ba ngoon loolu amul dalil woor seex socc suba ba ngoon amul dalil ndax dem woor dem jëndi socc seex ko suba ba ngoon miin bu nekk nga seex ko amul dalil aadal aada bi mooy xëy na bëggoon nga am loo sàq mi amoo ko ngay sàq mi socc loolu mooy aada bi amul dalil parce que boo demee ci imam malik bokk na ci borom xam-xam yi jàngale ñoom dañ lay wax ni la sax euh, boo wooree mën nga bañ a socc mais loolu erreur la parce que moom man ka ca koor yàlla mu saaba ca 40 jours ya 30 jours ya mu socc après noonu ko demal walaat yeneen 10 jours mais boo wooree danga war a socc ba sa bañ set wecc wala nga jël sa pâte dentifrice brosse ba sa bañ set wecc am na ñu lay loolu ni la non doo utiliser pâte dentifrice pâte mooy socc tubaab socc yi mooy socc wax nit ñi dégg ñu alxuraan léegi nga dégg ku ni noo boo war doo jël pa lu tax doo jël pardal bi socc tubaab la maanaa tubaab yi di ñu def loo daan socc muy socc benn bañ léegi nga mën soccandoo 32 dents yëpp ci benn eh, ci dem ak dellu waaw kon par entreprise dafay dafay daf lay permettre eh, ngay dégager eh, xeet boo xam ni xeet bu neex lay doon ci sa gémmiñ kon ku la nit doo war a socc par entreprise amul fu ko teg amul fu mu teg loolu aada nag bu koor ñëwee aada bu nekk dañ ko dégg waroon nga war ci xam yu bare avant nga ci àgg baax na boo xëyee suba jëlal sa pâte dentifrice brosse wàññiwul dara amul fu pâte dentifrice di yàqee koor amul waaw kon loolu du loo xam ni nit ki dafa naan dafay yàq sa koor walla euh, dafay wàññi sa yiw déedéet